aleykum salaam. ñooñu li ñu jaaxle si àll bi ñooñu lotissement bu ñu nekk di wax du lotissement lii complot la parce que lotissement bu fekk mbuur moo ko def dafay recensé loo ñàkk daf la koy jox moom mu jël wàllam waaye loolu ñëw fii doole moo fa ñëw pour jaay parce que man maire bi dafa jeex. ñoom dañu bëgg a profité wala kii bi le décembre bu ñu def vote bi wala muy jot dañu fekk ñu jaay àll bi yëpp bu ñu daane dem seen yoon loolu rek moo fi nekk ñun fu ñu nekk ne ñun jigéen dañu liggéey fee yàlla gis doom aadama gis ñun du ñu fenn lu ñu nekk dañu am Macky Sall moom moom réew mu Sénégal Macky Sall na taxaw si ñu bari président da ngay toog fële doo yegg yeneen ñu muy si région yi ñoom dañuy def seen business wuti xaalis seen poche dugal dem ay étages ñun ñu nangu suuf ñun fan la ñun fii la ñuy dund ñaata 30 at stade ni dia yaa ngay liggéey nit bu ko noo ko si ak yow waxal na dara dafa indi tracteur sa yaha bi moy ñeenteel yoon ñu ngi indi tracteur di yaha fi dañu ko indon ñu daxako ñu ko waté ñu daxako légui léegi barkaati demba ñu indi tracteur ñu daxako demba ñu indi ko bi moy ñeenteel yoon ñu indi tracteur di yaha toli jambour dañu ñëw duñ la wax salaamaaleykum dañu duggoon na fi ñu lotisi si ñu ñëw lotisi ñu na len yeen kan moo leen di yónnee ñu ne Richard moo leen di yónnee dafa jaay fii SD SD bu mu jëlee xaalis daf ko jël mu tabax këram Thiès Thiès la tabax bu ngande ñun bu muy jëlee xaalis bi ñun fekk ñu ko léegi dañu bugg a jël force pour ñu nangu suñu tool ñu jox SD ak ñeneen ñeneen parce que ñun ay baadoole lañu. loolu moo ñu métti président Macky Sall na taxaw problème bi moo yore ñëpp ñu fi dox si àll bi maire ñaa gis Macky Sall mo leen di placé pour liggéey liggéey yoon Ousseyfour yi ba ni dañuy nangu pour ñu daalal taati garab ñoom ñu ànd fii di recensé di def lépp ñu ngi fii musuñu ko gis ñu tekki ba mu dee. askan wi bu ñaa gis ñu partagé man loolu laa tey daf ñu ko partagé ñun ñëpp benn la ñun ñëpp doomi dey doom bàyyi lu tax muy muy séparé loolu la mu indi eaux mu indi gendarmerie gendarme ñëw na ñàkk pompe démb barkaati dem bak tay ma ngi wax gouverneur bi souf eh, préfet bi mu ngi fi lolou pour lan la gendarme bu ñu ñowé tay ñu pompé ta de def sen liggéey lolou rafetul sen yaram war la daw surtout jigéeni kese barkaati dem ba dañu dugg jigéni kessé lañu fekk dem ba ñu dugg ñu fekké jigéne après goor ñu lén di wo pour ñu ñew ñu set ndax li rafet na dar lii rafetul suñu président Pa Ñaasi la tudd Mamadou Ñaasi mooy suñu président ngir yàlla président